am bës bi ndax fi mu dugg moo tax ko xam-xam ne fa mu coon sekk takkuwaal sekk nañ bëri biriw bëri ay bëri ay masala de ñoom mënut a ñàkk foog coo am aw baba caam ku bëgg akara fa nga naa leen bul geesu bul te bul déglu ku bëgg a dégg di nga dégg ndax diggante ñaay euh, diggante boo bëggee akara fa nga def akara fa nga fa nga da riic dafa métti kon nag aw baaba bu leen faale ndax euh, sala du ma wax dara ndax bug aay dag yaa aay sala bu togam aw baaba mun nañ jubóo mun nañ sekk jàmm salaam ñañ ñañ bu ñu ay seetaan ay seetaane yu mag ay naafek ay ñi nga xam ne ñooy gàdd saagu saagu saagu garandaa mi di leen duul di fen di kàcc ku ne di wax sala bu leen faale aw bu leen faale man du ma xas sala ñi sës si sala laay xas ñan ñi nga gàddu saak. comme kon. naa fekki kis man am zozo. Eh. daf ay xam daf boppam bu rëy. man ni pizza. yow moom sa kaa xam naa la xam moom xam naa ko baax baax ñett xam ñaa xam man xam naa ko baax baax. maa ngi am zoo. am ko lu mu bëri na bu ma paree naa naa bu ma paree naa ñëw si kaam. waaw euh, aw Baba Thiam. Ah. yow jeeg nga doo jeket macha allah. xam nga tam xam nga tam man naa loola. da ngaa nekk jigéen gu mun góor am fulla am jom am fayda. sara tam nag jigéen gu mun góor am ful am fayda ndax sara benn laa ko mos gis muy xew daba sëy bi dem naa fa mu yëkkati xaalis bu may ma woy naak woy neex du ma du ma ko wax dara comprend nga minu ko nat wante aw baaba caam dama kaa xam dégg mu def ay baax ay xeet baax a baaxam macha allah nekk jigéen gu mun góor am ful am fayda xam tax xam tama nawloo ko dana pat pataaral xam ku mën ku mën dëgg-dëgg day toog na pat pataaral diiñ benn lam di yëngatu fu ndaw xam ñu ñu gën di wax mooy ñi nga xam ne ñooy euh, mara sentaar yi ñooy paaka ñaay boor toog di wax Amzo ba ki dem di nga muy wax pra pra pra Amzo lu mu def moo gën a garaaw Amzo xam xaraw Amzo la waaw xam nga ñoo ngi naan kii baan la koobara wóy am Amzo baan la koobara kabasara bëkk dem mooy njaay na nga fi takk takk suuf takk bu rëy kan lan takk nga ni Amzo nan takk takk suuf takk bu rëy mu defee maraaf bi radi son ya xalaa moo xalaa moo kii Amzo xalaa am Amzo bu ñëw Sénégal xam fan lay wàcc aéroport bi lay wàcc. aéroport eh, bu yoof bi. aéroport bu njëkk bi nu mu fiy wàcce yow aéroport aéroport fi wàcc bor privé lay jël ànd ak kilifam. Amzo dem naa këram France. mais li ngay wax garaaw na de. ma takk suuf takk bu rëy. Amzo appartement bu bu mu am sensibiliser. Hmm. du tubaab moo ko am du Sénégal moo ko am. bi sensibiliser faram apartement man maa fa dem. am néegam boo xam ne ay jama ay càkk ay ay moo fa nekk xanaa moo am soo doo gis day nit bu xuloo nit ki daree boole eh, dafa am ay bandam yoo xam ne ñoo nekk Sénégal ay ñoo xam ne ñoo lay dóor ba bëgg a dee noo sàmb rek ah. waaye bu xasee xuloo yow boole na ay nit ñu dóor ba bëgg a dee doon nag li xam dafa bëri. li ma xamal ma xam yow li ngay wax nii doy li ma xam bëri na am soo. Hmm. am na ñoo naa du ñëw senegal da ñëw senegal bu ñëw Sénégal ay dépôt bi lay wàcc. yow yaa ko gis maa ko gis maa maa këram fii Sénégal xam nga ngeen wala man dèjà man fan laay dem damay woyaan la sama yoon nekk si. waaw lu ñuy def wala ñuy def sama fu. en tout cas daal xam naa sama bopp xam naa nag. xam naa yaa ngi koy woyaan ba pare bëgg koo xas. lu ma xam waaw mbiri wax la woon nañu wax wax wax bu jotee dañ koy wax Amzo fii la am appartement côté géej gi du ma wax ban géej la naat diggante géej fa la am kër kër gu rëy am pis lépp. fii la ah. waaw fii la wàcc rek am na jëkkër kilifa boo xam ne du ma wax turam naat. jëkkëru lan ah. kuul. Hmm. jëkkëru lan nga ni. kilifa am jëkkër moom jëkkër kilifa takk takk suuf mu defee mariage ba daal di son privé waaw maa wax li dafa am jëkkër day sëy kilifa bu mag moo xoon turam ne dëkk bi yëngu waaw dama ko wax de. fii Sénégal fii Sénégal première vague laay xaar première euh, euh, waaw fu doon asi bi fa benn histoire bu amoon bi France daf nan dem këram ma àndal sama benn jigéen ñu dem ambiance këram. dem kër am zozo appartement bi nekk bi nekk bi nekk Paris. ñu ne ma euh, ma génn ñu ne ma da nga ko may seese ñu duggoon ci benn néeg ñu fay lampé yi. Mm-hmm. waaw man maa mën a yóndu may raam ba yóndu gis kilifa gi. Eh? waaw maa fekkale presse bëgg damaa gis. gis kilifa gan. jëkkër suuf maa ka gis maa fekkale presse bëgg man. kayta Sénégal la wala. kilifa ma nga naan boo xee kenn du añ kenn du añ. fii ci dëkk bi. ci dëkk dëkk bi koo xam ne tey jii. ku riis koo xam ne boo waxee dëkk bi yëngu du ma wax naan tur bi Ouzin yaa ngi wax ay ay ay wax yu doy waar est-ce que li ngay wax ngi ciy bàyyi xel moom ku mu bëgg ku mu am kayit Europe moom am so xam nga si dala dëkk mu dëkk pare ku mu bëgg nga am kayit Europe da nga koy am mu nee naa connaissance nee naa xamata loolu moom day liggéey si dëkk dëkk bi dëkk bi daf day liggéey lu mu fi liggéey du wax ndax bëgguma ko ku ma jël day liggéey dëkk bi ay poste la fi am fii ci Sénégal fii Sénégal poste yu mel na ay poste liggéey mu ngi ci dëkk bi Sénégal bu pay day dimbali ay ay nit ñu bëri ku mu bëgg mënu bu bëgg nga am kayit nga am kayit ku mu bëgg doom kayit doom kayit xanaa ku koy baan di kacapaa woyu boppam daf ay pax biram bu rëy leeram bu rëy bu gudd ban question nga may laajaat. en tout cas non man awma lu may tiit man dara mënumaa tiital ci àdduna waaye damaa xam ne eh, <laughs> yaa ngi wax ay wax yu doy waar yoo xam ne. est-ce que yaa ngi xalaat ci mën a fekk. bu paye aw Baba Thiam gëmal sa bopp nga dëggal sa bopp bu doomu aadama na xew nga sa xew seen na Aliou moom sama xarit la ku baax la. di ñaan sëy bi yàlla na bàkkee di ñaan sëy bi yàlla na bàkkee yàlla na ko yàlla yàlla na gën sëy takkee si aras di wax tam sëy bi yàlla bàkke ndax tey jii euh, ku bëgg akale fo nga fo nga ñeme kaani ndax tey jii euh, sëy bu amee lan mooy kaani gi kaani gi mooy métit bi métit bi ko waaw ku bëgg akale fo nga ñeme kaani fa ne xam kaani rek ñaar ñu bëggante ñu maye leen sëy est que jaar na coow li tam ñoom seen fan am naan waa sekk ni bu sonoon tubay bu xotteeku dëkk bi yëngu ren ñoom moom seen yoon nekk ci ñoom moom dañoo ñëw rek takk jabar ñaan si ñu may leen ma loolu ma si du ma dugg du ma si wax ma dëgg yàlla maa ma si na ma ma bàyyi wax ju ñaaw ju rëy dama bàyyi wax ñaaw li nga fi wax nii yëpp bàyyi nga wax ju rëy bàyyi dama dama ñamal la mu des euh, euh, deuxième vague kon am na deuxième vague waaw am na lan ngay xaar pour génnaat wax lan lu bukkaan génnee wax man daal damay xaar pib laay xaar pib mooy la am soo laay xaar mu génn wax bu génn wax ma fekk si ko xam dama daw am man moom du ma daw naa tax. yow lan moo tax nga di ko attaqué rek lan la. attaqué ma de damaa xam ne bu mu dugg si euh, euh, ma bu dugg si aw Baba Caam moom na yem si bosam moom na si bosam mu na si bosam moom moo gën a aw Baba Caam moom bànn la kacapaan la wóoy la. ay wees wees lay ay nit moodu-moodu yu ko tooñoon ay wees wees lay doon boole ñu dugg mu bëgg ay wees wees xam ñu juddoo si dëkk bi ñu juddoo France ñoom ñooy wees wees hmm. comme nga nekk France am fa jabar am fa doom loolu bu juddoo wes-wes nga koy woowee wes-wes dafa am wes am tubaab le wes-wes day boole ay nit baan dem na benn kër mu ñu am yaa ñu ñëw si appartement ba ñu song ñun xeex in leen fa problème woo weesu jàpp ñun dóor mën bëgg a dee ruuf leen senegal indi seen kayit kon ko amul jëkkër jëkkër gu rëy xam nga ku amul jëkkër wala ko amul baas dëkk bi xam lu ko def man amul ma daal loolu kenn ma dóor man ku may ah na nga na nga a def lu lay doore nga xam man kenn ma dool xam nga kenn ma dool. waaw man fit gaynde laa man maay gaynde jaa gaynde jaa jawut coow njaaw coow la bëgg. waaw. Hmm. dégg naa nga ni euh, ci weewu bay Wally daf lay may oto. waaw Wally Seck dégg na ma ne euh, wax na ma dégg na ma oto 2014. ba ne ànd maam moom. ba ba dawlu daal la maam moom aar bëriwul wéy wéy bëriwul nekk sama mag. muy kër sama kewe code kewe mm. waa waar sekk nag digg ma oto 2014 na ma dina ma jox mm-hmm. loolu jàll mu diggaa ma ne dama jox mm-hmm. xam naa dina ma jox xam bii paa naa si yaakaar xam naa bii paa du du échec dem ko ndax xam naa kenn mën dëddale woon muy Ndiogu Mbaye waa garaawul Ndiogu Mbaye woon mën dëddale woon waa garaawul xam bii paa mu wàll dama jox oto bii paa na neen dama jox dama jox may ma si biggéen ndeysaan bëkk de moo ñaa na may na ma xaas bëri ne xew ba damaa baatare xam seen anam bi damaa baatare waa neex ba ne xam ko moo jongoma aw baba caa moo non waxuma loolu de nga ne kan moo la dëddalee Waly. waa nga ne. ku la dëddalee Waly. Ndiogu Mbaye mu dëdd maa Waly Seck. moo dëddalee. Ndiogu Mbaye ban intérêt la am ci di la dëddalee Waly. moo ko def de wala Ndiogu ba sa xarit la. déet damay ah. laaj moo ko def moo dëddalee Waly Waly Seck na may oto bi paa. Hmm. waa Sénégal waa Waly Seck nee na may oto. te Waly Seck xam nga du ma may oto bu ndaw xam ma may kàr kàr la may may. xam ma bëgg kàr kàr. moom nga bëgg. waaw kàr kàr la may du ma may lu ndaw waaye waaye dafa risque dafa sama waa ji ma yaa si bëggee may si bëggee may si aji naanu nii ngi. waxaatal tàgg wi. ma yaa si bëggee may si bëggee may si maar. aji naanu ñin làmbaay. ñin ah. faramaa leen. ma tëgg yàlla. déedéet yàq tàggu jàmbur wi nag yow tam. kon nuñ koy tàggee. ah loolu. man daal lii laa mën a wax. Ah. wax dëgg yàlla. ma ñëwaat si kaa ab ab Baba Thiam ab Baba moo tax xale yi na jëfur. aw baba caam tam lu mu ba aw dafa jongoma de aw baba caam bu mu ba waa sek aw baba caam ñëw na mu def tournoi aw baba caam bu amee doom ji tam moo dàq doom aw baba caam rek aw baba aw baba caam ba mu ne tëll def noiram aw baba caam aw baba caam yaa jongoma nag. yaay nag fi mu ne xale yi jëful nag da ngaa jongoma nag non dafa jongoma si dafa jongoma. te aw baba caam reetaan aw baba caam aw baba caam dugg si cokka cokka xale di yuux ñuy jëfur yaay xale ne noonu noo tax di jëfur aw baba caam nat doo see morom nat en garantam nga pare ngaa jongo nat macha allah doom da de mm-hmm. waaw dëgg nga waaw macha allah wasalaam kan moo la bëgg woon hmm? ma bëggoon porter kii euh, ki ma songoon xeex kii ay waay boom Tarba Mbaye woo woon ma baalu maak ak audio yaa ngi ne bak sëñ fa woon na ma baalu ma ak nag. lu ngeen jotee ak Tarba. Tarba Tadjaboul laa dem ma bëgg dem Tadjaboul dem këram Tadjaboul ma woo ko téléphone ñu ñoom la ma dem këram. ma dem këram di ko woo téléphone jotuma ko ma audio ko audio bu sens xam maa mu sekk yàgg nañ sekk lool xam nga xam yenn saa nit di nga toll foo xam ne da doo nekk xam naa ju ko sulaal. yow ju ko sulaal nga yore. moom moom ju ko xam naa ju ko sulaal. Ah, moom. waaw xam nga yenn saa moom boo nekkee sa tàkk-tàkk. ba ngay wax sulaar la. ah fi soo na nekk na ñu naan ñëpp xamante na suñu biir. yaa ngi ma dama man ma naan de Red Bull laay naan. Red Bull. Red Bull laay naan laa wax dama gën ma. ay duul kan ngeen naat bu leen ma duula de. bul bul bul bul moom lu muy naam. moom ki lay naan vodka. ak jag janeel. <laughs> tar ba ngay tuuma. maa ko wax. te sànq wax nga ma ko si ni ma carrément na bàyyi vodka yi. wax nga ko sànq. ma waaye dama ne tar ba ngay tuuma. wax dëgg yàlla wasalaam première vague laa xaar borom bopp bi leer bi borom bopp bu bopp bi leer def ay pax ay vague borom bi bré bi moom laa xaar mu tontu aw baaba caam may leen ko jàmm asalaam aw baaba caam da ngaa risque gën risque sa xew risque nga waate dëkk bi joxe ay millions tala nit ñi man na sala dama nga xas sa xayit la yow sala fexe ngeen juboo ndax yi naan démbaloon tey soog a ñëw bàyyi bu la nangu seetaan dugg seen diggante. wax ji li mën nañ juboo fii du am na fi. Ah, fii loon na fi fii jëkka jabal jëkka jabal ngi nii ten saa ñu songo rayante sowruñ ay xar ngi ni xooli may ko may caa keroson bu ma ko xamee ba tey moom laa ko xamee ay une semaine quinze jours mi ko keroson bu bu zone bu muy sol zone xaw ma meuf xaw ma giri mbay ku caa arrêtal mbay ku caa maas jëlee mbay ku caa ngeen yóbbu ngeen sang ko si paan ngeen bomb ko joos ko mbay ku caa oos nga xasaw nga seetaan nga naa fekk nga yow moom xam nga ma man bu ma déggee. mbay ngay mbay ngay sànni nii xeer. du yow xam nga mbay. mbay ñemewu ma bak sëñ Fall mbay ñeme ma eh man gaynde njaay la nee naa maa gaynde njaay gaynde njaay jaww coow njaaw coow la bëgg. ey eh! oh! man la mun ngeen coupé caaw.